mbokk yi njàkkare ak tiis ah, ma ngay bëgg a jeex ci réew mi gannaaw bu problème taxawee nag ab solution la ñuy wër solution nag ñëw na ki ko indi di Serigne Yadaly Ndiaye di daan di borom xam bu mag a mag mag ci réew ah, suñu borom nag may ko xam-xam ci wàllum faj ah, mu ciy def lu am am solo dinaa ñëw nag ci feebar ya nga xamante ne tey ma nga koy faj waaye damay ñëw ak moom ci wàllum istixaar istixaar nag mu ciy def lu am solo suñu borom dénk ko ci ab xam-xam damay door ak moom feebar yi nga xamante ne mi ngi koy faj lii di wàllum télé impuissance sexuelle wàllum euh, rhumatisme jigéen ju bëgg am borom kër wala ki nga xamante ni tamit dafa bëgg am doom góor gi nga xamante ni bu teewee alal mu dem wala ki nga xamante ni tey dafa umu loole lépp nag Serigne Yadaly da koy faj nag Serigne Yadaly nag day nekk fi nga xamante ni tey moo di Touba ndaamaatu wala fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies unité 16 yow mi nga xamante ni nag yaa bëgg a jokkoo ak Serigne ya Ndiaye njaay ko ci numéro bi di 77 122 77 wala nga bàyyi mu nuyoog mbokki internet yi Fanta ñu ngi lay nuyu. sant bu baax alhamdulilah. di la nuyu yow aussi. ak waa Senbuzz senegal di kontaan ci yéen bu baax ci teewaay bi. di nuyu waa àdduna yëpp nag bàyyuma ci kenn. di ko nuyu bu baax a baax a baax moom fantasi bi fi ma taxawee ak moom sax daa neex ndax yaakaar naa ne yow la waale di waxal fii nii naka ngeen dundee préparation bi nga xamante ne yéen koy ci événement bi gis we di bokk ci gis nga lépp ñëpp a jóg nekk ca fu mu nekk nii damay ne li festival la wax dëgg ne yàlla suñu indépendance si Gambie Wally Seck Touré Shop ah. signé Wally Seck pour mu ñëw ci réew mi Wally dafa ñëw ci réewam Wally sénégambien la Wally Gambie moo sax ci xolam gambien yi sax ci xolam gambien yi aussi dañuy jël Wally taf leen ci seen xol macha allah loolu yàlla la ba tax na suñu bési indépendance bés bu ñu gëmoon suñu bopp ah Wally di ñëw tëgg Gambie loolu fierté la parce que doomu réew mi la fii la dëkk macha allah ci gàttal daal le 18 mooy on the 18 ak 19 février foofu ca Independence Stadium mhm. du yomb du yomb parce que ku dem stadium tey uh-huh. ci stade bi uh-huh. gis uh-huh. scène bi rek liggéey bu waa Helcom Bache def Wally Seck indi ko wàcce ko ci réew mi sa xol day kontaan di nga xam ne Wally Seck dafa am fi mu teg waa bi image bi ñuy gis ci grand théâtre ci esplanade bi liggéey bu xaraañ bi muy def ci scène ah, image ah. c'est magnifique dama kontaan. <laughs> c'est magnifique da nga kontaan dem naa fa gis naa liggéey bi macha allah mais damay ñëw ci diggante Wally Seck ak waa Gambie. loolu yàlla la man sa xawuma yàlla la. cofeel boobu dafa jóge ci yàlla wàcc ci xol yi wax dëgg ne yàlla Wally lépp lu muy def ndakaaru projet bépp projet bu muy def ndakaaru mu ngi koy def ci réew mi don yu muy def Dakar mu ngi koy def ci réew mi wax dëgg ne yàlla loolu fésal na fi Wally teg waa bi te waa bi aussi fesal nañ ko fu ne ci àdduna fépp fu Wally dem tëgg waa bi toppat nañ ko fa loolu so loolu mbiru yàlla la yàllaa leen boole yàllaa leen taf ci xol kenn mënu ci dara damay ñëwaat ci Wally Seck ak Fanta sa diggante ak moom sa diggante ak Wally dafa jaaxal sénégalais ñu bëree bëri bëri yaa njëkk a indi Wally Sénégal wala Gambie. yàlla. Mhm. maa ngi jum sax ci question bi. je suis de Wally. yàlla moo ñu boole. mu sax yërëmande boobu ak cofeel boobu diggante maa Wally. waaye bi nga koy taxawu Gambie lan la. mais yàlla la du man du moom du keneen yàlla la lépp yàlla la mhm. waaw. tey boo toogee gis milieu showbiz musique bëri ay polémique entre Wally sekk ak ñeneen ci biir showbiz loolu loo ci wax. nee naa àdduna yooyu man dugguma musique man Wally sekk laa bëgg du musique Wally jëmmam. bi am ci biir musique bi ma ko concurrent. loo ko gisee laa fi gis Wally laa gis ci musique man Wally lay nooyee man Wally rek laa gis ci musique mooy sama artiste mooy sama lépp mooy sama référence mooy sama idole ndig jikko ju rafet bi mu am. bi. lan ngay wax sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi waaj ñëw fekke ci événement bi. dañuy ñëw seen réew. Mhm. Gambie seen réew la. Mhm. Sénégambie la ñu wax Sénégal ak Gambie benn bopp la. seen réew lañ ñëw ñu ngi leen di dalal si jàmm mhm. na ñëpp ñëw mhm. xëj nañ ci mesure barrière yi nga xamante ni tamit mu ngi dox ci corona bi yooyu bëgg nañ nga indi ci leeral ñi nga xamante ni ñoom it ñooy fan si ak soppe yi c'est très important mhm. côté boobu dama ci gën a wax jël nañ suñu matuwaay bu baax yore nañ suñu ay masques yu ñuy joxe ci bunt bi ku nekk bala ngay dugal dinañ la jox sa benn masque ba pare def gel sa loxo loolu moom kafewuñu ko loolu yooyu ñooy rul si te dañuy toppa rul si ba mu ba sës ñun ñëpp xam nañ ne woykat bi ci boppam Maria Sin may sa bigé may sa bigé maar santé priorité am la duy café santé macha allah donc loolu moom dañ koy dox doxal direct bala ngay dugg da ngay yore sa masque ñu jox la ko nga daal di def gel bi si sa loxo sécurité bi fu ne ma ne la ci biir nit ñi sa sécurité dinañ dox ci biir nit ñi parce que sécurité nit ñi tamit suñu priorité la oui kontaan kontaan nañ merci beaucoup merci beaucoup c'est bon ayca yi maa ngi fii ba tey ci Gambia ah ni ñu ko waxee rek toppal leen li nga xamante ni tey moo di actualité événement bi nga xamante ni Wally Ballago Seck mi ngi koy waaj fii ci Gambia waaye nag maa ngi taxaw ak ñi nga xamante ni tamit ñoo di seen lëmbal di xale yoo xamante ne nag toj nañ àdduna fu ne toj nañ ko ci réew mi laataa may waxtaan ak ñoom rek dañ may defal tuuti ambiance rek ma soogee waxtaan ak ñoom ayca ñu dem si ambiance tuuti balaa ñoo door dañoo simple nag dem leen sama xel dalul de da ngeen yem de. bu yeboo li nga bëgg duñ ko def. aywa. ay ci waaw. sama taxi. waaye sama xol bi. waaw euh, mais euh, c' est bon c' est bon laata euh, jërëjëf jërëjëf damay commencer présentation bi tur bi naka la. Ndeye Yérim lañ koy wax. Uh-huh. di représenter Sénélambal. tur bi naka la. Euh, Maguette. Maguette ah Maguette waaw. cantatrice. artiste Sërël Mbol ak. tur naka la. man ka jaa laa tudd ka jaa Diop. feccikat hmm. bu mag bu téye réew mi nii Sërël Mbol Sénégal dëgg neex. Hmm. alxames bi nga konta yow tur bi. Ndeye junior. Sërël Mbol. Sërël Mbol ñu waxtaanee ko ñu waxtaanee ko événement bi nga xamante ne tamit yéen a ngi koy waaj mu gis ñu ngeen génn di teeru ki nga xamante ne tey moo di Wally Ballago Seck. waaw loolu boo ñu ci laajee dinañ sawar a tontu mhm. ndax Sénégal moo ñëw fii teew Gambie waaw ñun ñooy seen lëmbal bu Sénégal ñoo lëmbal réew mi lu fi baax rek ñun ñoo ko lëmbal lëmbal bi ñoo ko téye nii suñu loxo amee uh-huh. ñuy lëmbal du kenn dul dindi uh-huh. fii kuy lëmbal boo ñu gisee da ngay xaar uh-huh. ñu ñëw nag waa Gambie ne ñu soyez les bienvenus ba ba tey ñuy toj fii lancement ba fi mu ñëw suba fee dina mel ne bañ bi métti waaw ba leen orange money yi ngi ñëw dégg naa lëmbal yi ngeen di lëmbal nit ñi dañ leen ci orange money waa xam lii day sunu culture te feet daa bokk ci ñu koy sàjj di ko takk lu neex def sunuy déguisement ba pare ñu set si lu sa bëri yére mën a sol di xeeñ parfum yu neex yow fi mu ne nii rek sa xol sedd loo yëg yow. loo yëg. maa ngi sant. déedéet damaa bëgg nga wax dama ne lan ngay yëg. ah maa ngi sant kay neex. waaw ñi mel ne yow rek ñooy Orange Money. bu leen ma sottee nañu waxtaan rek teg ko ci kaw. yow ñi mel ne yow rek ñooy Orange Money fi mu ne nii. ñu mel ñu mel ne yow kontaan ñun. <laughs> ci initiative bi ñu def nii. Mhm. lii xam nga li amu fi woon da nga doon gis ay groupe de danse ñun ñëpp ay fecckat lañu ku nekk yaa ngi ci groupe kii day feccal ak Adiouza man maa ngi feccal ay nit uh-huh. Maguette Seck mi ngi feccal ay nit Ndeye Yiri même chose Fassar aussi même chose uh-huh. mais ñun ay feccikat lañ te feccikat moom luñ la ko war dem def ba mu mat uh-huh. ñun boo ñu waxoon fecci leen Michael Jackson léegi bu ñu summee ko da nga naan loolu lañ a uh-huh. bu ñu baara mbayee doo toog lii la ñuy dindi goudron bi uh-huh. màgget moo ko newoon léegi laal fii moon la cinq pas dootoo ko defati mais li nga xamante ne tey fecc ni nga xamee ne noonu la ñuy gisee fecc pourquoi tey ngeen choisir si tey fecc bu sexy bu xaw a vulgaire bi lu tax ngeen choisir si boobu pourtant lëmbal moo mel fer rek dèjà boo waxee fer rek dafa vulgaire da ngay gis ku jël fer exposé ko néegam rek ku dugg rek ne lii dafa vulgaire te fer sunu culture la ñun dañoo war a def lu ñu moom contemporain bi ñuy dem di ko defi di dem fu nekk di ko def ci àdduna bi ñoom loolu ñoom ñoo ko moom ñun sabar lañu moom tey boo ñu woowee ci sabar bu ñu ñëwee lëmbal da ciy bokk farwu jar da ciy bokk ceebu jën da ciy bokk ndaga da ciy bokk ñun loolu lañ moom léegi nag Sénégal moom mus lii mus fay am la première fois sene lëmbal ngi nii xale lan mooy indi eh, lan mooy indi xalaatu créer group bi. waaw dañu toog kajaa am initiative bi xalaat ko woo ñu ñu ànd ceeg moom comme que ñun ñëpp ay feccikat lañu comme ni nga ko waxee boo ñu bu la tëbaloon léegi nga ne mënuñu lëmbale te sabar la ñu gën a mën ah lépp la ñuy fecc ay danseuse professionnel lañu dëgg du neex. ñu fekk si ko ci loolu. Mhm. mu rafet ba ni ñu gis ñu du bëgg ku nekk di ñu woo di ñu moo ñu andi tay Gambie. ngeen di feccal ay artistes yu mag nan ngeen def ba am seen diggante ak artistes yooyu noonu am collaboration. waaw dañu xëcaa daf ñu invité bañ defee groupe bi. invitation a dem 2 di ko sant di ko gërëm di ko sant di passage ak boss tamit suñu ménageur bu ñaawul boobu. Ah, ah. nit ñi dañu gis di ñu bëgg. le frère xëcaa borom seen bëgg. Mouhamed fa fa la gisee bëgg ñu. Ah, andi ñu Gambie ñu yëngal. Mhm. waaw dëgg du neex. mais fecc bi ngeen ciy feccee sénégalais ñu bëri di bonal ni ngeen koy dundee loolu tamit yéen nag ngeen ci am yéen en tant que yéen ay jigéen. fecc bi ngeen di fecc nit ñi di ko bonal di ko ñaawal nan ngeen koy dundee en tant que ay jigéen. niñ koy dundee mooy xam suñu bopp. xam nañu ci liñ nekk bonul métier la rek dañu am nday am baay yor famille. kon ñun ci luñ nekk gëm nañ ñu bonul que yëg nañ ci suñu bopp macha allah te kenn duñu ci gis ñu def lu ñàkk fayda man moom foofu laay gën a nawee sama bopp parce que xam naa ki ma doon nañ ne Maguette Seck moo taxawoon fii sol istrin di lëmbal dérangé wu ma parce que xam moo tax xam naa ki ma doon du ma ko def ci àddina lu nit ñu wax ça va mais ci liñ nekk ñu ci nekk bu tere ci suñu ndey taxawaalu ñu dañuy liggéey. yéen lëmbal ngeen def liggéey. fecc lañ def lëmbal ndax boo nee fecc ëmb na lépp da ngay da ngay da ngay ngay faas da ngay contemporain da ngay fecc lépp fecc la aar la. et eh, ñun ñeewuñu sax ñuy xëy ci bureau yi. d' accord aar la fi nit ñu baax ñu taxaw yëpp dañu fay taxaw. te lu baax moo tax ñu koy def defuñu si dara lu ñàkk fayda ah. gëm ki suñu bopp nag xam ñu ñu doon. waruñu di fekk ni ci air bi de. barke Serigne Saliou ay nit lañ dañu juddu am ndey ak ñu ngénte ñu te kenn bëtaluñu ñu xam ci ñu ñu doon. taxawaal taxuñoo jóg ci aar la nekk mee du lëmbal kese loo ñu woo ñu wuyu la. seen diggante ak Adamo lu ngeen ma ci mën a wax tuuti. non Adamo daf ñu seetaan 2STV ku baax la bi ñu defee émission bi mu woote bëgg ne dañu bëgg ñu def ak moom live bi ñu def ak moom mu waxal ñu lu baax ñu toog fa fo mais dañuy xamal Sénégal àdduna yëpp que ni Séné Lëmbël dañ ko créé ñu ay compagnie yu mag la ñu nekk di ci liggéey Lions of Africa lay ananas international boobu ñëpp a ko xam ànd nañu ak moom risi ànd ak moom fu nekk ay feccikat lañ mais fecc dañ a génne koy toj te américain yi loolu mooy li yëkkati seen aar ci fecc lëmbal na cee bokk. <laughs> mais kon ñun dégg nañ Sénégal yi suñu bopp te xam ne ñun tuxuñu naanuñu taxawaaluñu gis nga bi ñu defee live bi ak Adamo am na ñoo xam ne dañu woote débordé di di woo di di envoyé suñu numéro ménagère di wax yoo xam ne dañu war xalaat ne am nañ ay rak yu jigéen te fecc mi dañ koo def pour ñun loo xam ne yàlla ku nekk yow bi nga juddoo am nga loo bëggoon doon yàlla li nam ne li ngay doon moom ngay doon ñun yàlla moo ñu def ay fecckat lu nekk ñu gëm suñu bopp di teel a yeewu di liggéeyal suñuy waajur barki Serigne Saliou ku ci nekk fajar ngay yeewu di liggéeyal say yaay di togg añ di boo paree dem saal suñu saal yi dañuy répété dañu nekk saal di répété ci laay ananas monsieur Jibi Ndiaye Baba Jibi Ndiaye of Africa série ay ni di gët woon nag suñu benn xarit Pape Medina borom États-Unis day xaaral maa ngi ñëw tuuti ci say good. eh waay tur bi naka la. Fat Sarr. Fat mi nga ko tey. tey ma ko tey ko. Fat Sarr ci biir lëmbal lëmbal gi ni ngeen koy dundee. waaw lëmbal bi ni koy dundee rek comme yeneen artistes yi rek comme ni ñuy feccee rek ñëpp rek même kii bi ñuy def rek la fecc la tëb la lépp la rek lëmbal rek la rek waaw comme artistes yi rek du lu bon tamit ndax nit ñi moom lañ bëgg te jamono ji ñoo fi teg loxo. Ah. dëgg neexul. lu ñu neex la def. kontaan tus. mbokk yi njàkkare actrice ah, ma ngay bëgg a jeex ci réew mi gannaaw bu problème taxawee nag ab solution la ñuy wër ah, solution nag ñëw na ki ko indi di Serigne Yadaly Ndiaye di daan di borom xam-xam bu mag a mag a mag ci réew ah, suñu borom nag may ko xam-xam ci wàllum faj mu ciy def lu am am am sol dinaa ñëw nag ci feebar ya nga xamante ne tey ma nga koy faj waaye damay ñëw ak moom ci wàllum istixaar istixaar nag mu ciy def lu am solo suñu borom dénk ko ci ab xam damay door ak moom feebar yi nga xamante ne mi ngi koy faj lii di wàllum télé impuissance sexuelle Euh, rhumatisme jigéen ju bëgg am borom kër wala ki nga xamante ni tamit dafa bëgg am doom góor gi nga xamante ni bu teewee alal mu dem wala ki nga xamante ni tey dafa umu loole lépp nag Serigne Yadaly da koy faj nag Serigne Yadaly nag day nekk fi nga xamante ni tey moo di Touba ndaamaatu wala fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies unité 16 yow mi nga xamante ni nag yaa bëgg a jokkoo ak Serigne Yadaly Ndiaye woo ko ci numéro bi di 77 122 77 60 wala nga woo